asalaamaaleykum wa rahmatullah chers collègues messieurs les ministres maa ngi leen di nuyu président deux ans ginnaaw bi yàlla dogalee mu wàcc ci nguur gi moom président Abdoulaye Wade dama ko seeti woon Versailles ñuy def émission mu ne jour bi ma gañee si samay alliés dafa am ñaar ñu ñëw ci guddi gi salaamaaleykum maaleykum salaam au lieu ñu ñu ne ma wàllum créer bi jëlal musuwaar gaaw fomp gaaw génnee ko diwa ngeeg quatre-vingts milliards diwa ngeeg quarante milliards diwa ngeeg diwa ngeeg ñooñu nag laa gis ne ñoo àndaat ak Macky moo tax ba mu génnee créer ba bettu ma monsieur ministre jamono joo xam ne askan wi dañoo taxaw wax ne créer bi baaxul heure boobu lañ doon sàkk ñu indi ci ay réforme wala sax ñu tas ko mu jóge fi mais boobu président Macky Sall dindiwu ko réformé wul bàyyi la nga xam ne moom moo fi nekk maanaam kañ tuumaal te doo indi ji ay preuve sonn ñenn ñi ne jàpp ne dara taxul woon président Macky Sall def lu dul régler ay comptes am parce que nag ah ñu ne ay taskatu xabaar lañ président Macky Sall dafa ne indi nañ la parquet financier waa CREI bii ñoom dañ ne CREI pour waa kër Ablaye Wade la wala ñu fi nekkoon OFNAC bi pour ñin la. mooy yéen parquet financier bii nag laa xamul pour ñan la waa mais of nag bi lan lay jëriñ yéen pour buñ ne yéen boo leen fi jugee te comme que nag yéen yàlla dogal na kenn buuxu leen kenn forcé wu leen yéen a renoncé ngeen à une troisième candidature kon yéen dem ngeen yéen moom bokkatu leen kon yéen of nag ñu jugee foofu ñu ñëw ci parquet financier bi le mbaa biñ ko utiliser di traquer tamit ay opposants je m'explique ñaar fukki doomu aadama ak juróom la ki Sall ak waa këram jël bind leen liste saa yu ma xëy di leen revue de presse rek diw ak diw diw ak diw diw ak diw diw ak diw ñañ ca tëj ci kaso matuñu ñaar kenn ka fekk na leen ca présidentiel ga kenn ki ministre la kenn ka buy tukki da koy yóbbaale kenn ki daal moo ne maa bañ muy Karim Wade ngeen génnee ko réew ci ñaar fukk ak juróom ci ay doomu adama te dañ ne woon dañ ne woon lu tax ñu songu waa ji mooy niñ ko dénkee réew mi ak alal jéeg yooyu ngeen dem ba ci biir ngeen ne lépp lu ñu dénkoon Karim Wade kat amul dara luñ ci sàcc amul lu bon amul lu dara ñu ne waa léegi kon lan la ngeen ne yori na alalam jii mu yor nii daal lañ njortu ne fa mu jugee daa setul waa te yéen ngeen ne bénéficié wu ngeen ci largesse su baayam waa kuy may koo xam ne yow adoptif rek nga ku faqee koo ci genn moom nu muy demee monsieur le ministre loolu ba léegi ne xamuñ fi mujjee seen ex ministre premier ministre ak ministre de la justice waxoon ngeen ne CREI bi euh, euh, euh, lu tolloog recouvert na lu tolloog ñaari téeméer ci ay milliards waa mais milliards tey ngeen xam ne menteuse la yéen a léegi nag xaalis boobu lañ bëgg nit ñi wax ñu waa CREI bi CREI bi dans léegi nag loolu ngeen dépensé woon yëpp ak li nga xam ne jëlee ngeen ko ci nit ñi fan la toll boobay benn ñaar ñi nga xamante ni nii aussi yéen leen doon yóbbu Euh, commission rogatoire monsieur le ministre dépensé ngeen ay milliards dem ngeen Singapour dem ngeen Monaco dem ngeen États-Unis war ngeen Sénégal yëpp waa léegi loolu noonu yëpp nag sénégalais aussi bëgg nañ ci nag ab gindi monsieur le ministre ñuy sàkku nag ñu arrêté di politiser les institutions créé bi ci boppam loolu la fi dund ak Karim Wade ak ñoomin seen ministre affaires étrangères toog na fii ma ne ko ubbi ngeen ambassade Pologne ba nekk ca bu Sénégal ba ca Pologne ndax Malick Gakou kese Amadou Ba xam na li may wax euh, Macky Sall xam na li may wax affaire étrangère xam na li may wax Aïssata Tall Sall et cetera maanaam yéen arrêtez d'utiliser les institutions de la République di mater ay opposants ñu ñëw nag ci wàllum amendement wu euh, monsieur le président Oumar Youm ci alinéa 3 nee na la médiation pénale prévue au présent article peut inclure le versement au trésor public d'une amende dont le montant ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue. Son versement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République financier pour une période inférieure ou égale à un an. médiation pénale moom monsieur le ministre xanaa tey la baax ak tey la dagan question boobu laa amoon lu ma leen di laaj allahumma salli ala sayyidina Muhammad অফিসার করে